الفشم عبد فردي لولا النبي رسول الله لا تريم asalaamaaleykum mbokk jullit yi asalaamaaleykum mbokki dellukat yi ci ndigalu Serigne Jibril Combaan xalif bu kër Serigne Alpha Xima Combaan ak mbooleem njobootu cambaaneen gi yépp daayira sopp maam Alpha Xima Combaan bu Kolobaan Combaan ñoo leen woo ci seen gàmm bu ñuy amal atu nekk ren ji samedi 17 décembre 2022 lañ ko amal foofu ca bayaal ba den nekk jumaay Kolobaan Combaan mbokki dellukat yi dinañ ko amal nag ci teewaay pare monsieur Babacar Mbaye Combaan ci teewaayu maire Maman Fatou Ciss première adjointe au de la commune de Morlan mbokk programme bi lii la tëddee 11h14 mobilisation sur la santé de la reproduction 14h 16h30 pause déjeuner prière 16h 17h récital du corps ñu jàng alxuraanu karim 17h 17h30 ñu daal di julli def mise en place 18h 19h30 cérémonie officielle 19h30 20 ñu daal di joxe li nga xamante ni mooy benn 22h ñu daal di door jàng mbokk yi thème war a doon la vie et l'œuvre de Serigne Alpha Ahmed dund ak liggéeyu Serigne Alpha Ahmed Thiombane conférencier bi ca bés ba Serigne Sidi Ahmed Mbaye ñun ñëpp xam nañ ko ci waxtaanam ak xam-xamam bu leer animation bi Omar Dione ak Koungheul képp ku julli di wax ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu muhammadan rasulullah ñu ngi lay ci bés ba am solo boobu samedi le 17 décembre. di ànd ak waa daayira sopp maam Alpha Xima Thiombane bu Colobane Thiombane ci gàmmu mag bu ñu amal at nag ren jii samedi le 17 décembre 2022 lañ koy amal foofu ca Colobane Thiombane képp kuy jullit ñu ngi la woo Morlan Noto Jandeer Pambal ba Thiès ba Mbuur fàttewu ñu kenn asalaamaaleykum wa rahmatullah